de dire ce que j'ai dit en en wolof mais vous m'excuserez maa ngi leen di jógalu xam ngeen man moom damay bëgg a wax damay bëgg a waxtaan wante tey c'est pas une conférence de presse lu mu bëggoon wax daal ci gàttal mooy gërëm ñëpp sant ñëpp wante ngeen may ma ma njëkk gërëm sant suma mbokk ñu ma bokkal coalition taxawu Sénégal mu nekk euh, coalition bu suñu kilifa di jiite di Khalifa Ababacar Sall wax naa ko nee naa lii du conférence de presse waa taxawu Dakar ci seen mbaaxaay ci seen cofel ci seen pas-pas ci seen pasteef ñoo taxaw nekk lu jot jot na mooy jóg biiralaat lu ñu waxoon parce que lu ñu waxoon mooy ñun dañu dañuy candidat ci mairie de Dakar kooku tey waa taxawu Dakar dañ ko biiralaat fii ci seen résolution bi ma di ci gërëm na di sant ñu wax waxaat nekk ñoom ñoo déposé depuis le 13 octobre seen candidature candidature boobu nag man maa koy porté man Barthélémy Dias déposé nañ ko nag fu ñu ko naroon déposé mooy ci commission Yewwi Askan Wi bu département de Dakar monsieur Diakhaté bokk ci grand parti moo koy jiite. Euh, lu waral lii ñëpp xam nañ ko parce que wax dëgg yàlla ku toog tey nekk taxawu Dakar tànnuñu euh, candidat ah kooku peut-être ñu koy wax ñoom la engagé wante ñun waa taxawu Dakar. biral nañ ko tey fësal nañ ko tey dañu déclaré suñu candidature fu ñu ko nogoon déclaré parce que ñun wax dëgg yàlla taxawu Dakar dafa bokk tey ci beneen coalition coalition boobu moom la charte Yewwi Askan Wi jox sañ-sañ bu mën a recevoir ay candidature donc je pense que loolu tout de même xel mën na ko nangu te nopp mën na ko dégg bu may daanale nag mooy ñu ngi tàllal suñu loxo yi ñu ngi koy tàllal bépp góor bépp jigéen bépp mag bépp ndaw bu ànd ak ñun ci coalition taxawu Dakar tàllal tamit suñu loxo suñu mbokk yi ngeen xam ne ni ñoom ak ñun ñoo bokk suñu coalition Yewwi Askan Wi politique fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi mooy xëccoo wala parloo wante loolu mbiru àdduna la wante nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci yaakaar bu askan bi teg ci coalition Yewwi Askan Wi te coalition bi nañu bàyyi xel ci turam ñun ñoo woote yeewi askan bi wootewuñu fii noot askan bi wootewuñu fii nax askan bi wootewuñu fii leneen ginnaaw yeewi askan bi kon ñun ñoo doon wane le bon exemple. moo tax au-delà des remerciements ñu ngi tàllal suñu loxo bépp acteur politique bépp responsable bépp militant bépp sympathisant bu bokk taxawu Dakar wala bu bokk yeewi askan bi ñu bokk ndey bokk baay mën a waxtaanee lu askan bi namm ci ñun. te kooku wax dëgg yàlla je pense que amul leneen lu ñu mën a xaar ci ay responsables yu toll nii ñun ñii parce que nous sommes tous les mêmes des responsables qui aspirons à diriger ce pays donc xajuñu ci xuloo xajuñu ci xëccoo xajuñu ci yenn ñaawte fi di gërëm ñëpp di sant ñëpp mais surtout tamit di rafetlu encore la présence du maire Palla Samb parce que dafa demoon benn remise de dons dalu siwaat na je pa pas parler de a je peux pas voilà ñu ngi gëm rek sant la présence de suñu yaay tuuti Samb ah monsieur le maire Talla Samb du Point E est là vraiment je pense que du plateau aux Parcelles Assainies toutes les coordinations Taxawu Dakar se sont mobilisées e je l'ai déjà dit su ma tuddee ay surtout Fall Mbacké tudd Ngoné Mbengue daanaka tudd naa jigéen yëpp tey suñu tante ñëw tuuti Samb ñu ngi koy gërëm sant ko di ko sant suñu tuddee tey Bassirou Samb tudd euh, Seydina Issa Laye euh, tudd tamit euh, Ndeye Fatou Sarr tudd nañ ndaw yu nga xam ne ni ñoom ñoo élif tey ndaw yu nekk biir taxawu Dakar et je pense que la présence je répète je aussi au passage malheureusement taxawu Dakar n'avait que 16 maires sur lesquels les 11 nous ont tourné le dos il en reste Et Tahaou Dakar, comme vous le savez, ça a été initié par des exclus du Parti Socialiste. Sur ces cinq maires, il y a trois maires qui sont socialistes. J'en fais partie. Madiop Diop de Grand est présent. Par le sang de Fanpoint est là. Je pense que au-delà de ces présences, je pense que les autres, vous les connaissez, que ce soit les parcelles Assini, comme j'ai déjà indiqué à Koukou Ibrahim Sidi Zachlem, ku lim jub ñëpp ñi fi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp kuñ fi limul tamit ñu ngi lay jëkkalu la presse tamit je tenais vraiment à respecter les engagements c'est une résolution qui a été lue par le département et euh, je vous remercie de votre présence je vous souhaite beaucoup de courage je vous souhaite beaucoup de courage et sachez aussi que le combat aujourd'hui du groupe des médias sachez que nous sommes en phase avec vous et vous avez tout notre soutien que Dieu vous garde aussi et que Dieu bénisse le Sénégal